nekk ni yépp suñu doyen la jàngal nañu ko il est en retraite mais vraiment une mémoire mémoire a ngi ni une mémoire vivante est là kenn mënu koo fay tout lat me ngi la connaît moo taxoon daal ñun lépp lu ñuy def rek dañuy ñëw mu jox ñu ay xalaatam parce que c'est une tête moo taxoon daal tey vraiment ñu ñëw ñu ne balaa ñoo def quoi que ce soit ñu ñëw jaar donc euh, jeunesse patriote du département de Kaolack doyen monsieur Ndoye ngi jërëjëf Sidi waa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm mbir mi ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko combat ba ñu jëpp pour intérêt Sénégal yëpp la amul catégorie jeune amul catégorie jigéen amul mag dañuy faral di seet bi mag yi ne dañuy nekk toog fële seetaan nag loolu du suñu cër mbéb suñu bokkulee dinañ wane yoon loolu mooy suñu cër parce que la tax a jóg mooy intérêt réew mi politique ñun bi ñu xam mooy nga yëngatu pour intérêt général intérêt askan bi ku bëgg su intérêt personnel ak ay intérêt matériel na nga mais pas dans le cadre d'un parti politique parti politique du instrument pour enrichissement personnel il faut que idée bobo, idée bobo, ñu génne ko ci xeli nit ñi depuis 1960 façon de voir boobu moo tax ba Sénégal toll fi mu toll avancé parce que ni ñuy jëlee politique léegi yàlla def na lii bees am mooy mouvance patriotique bi am bees moo ne gis-gisi politique train train histoire bi nag ku ci dugul soo mootee dina la dina dina bàyyi aake yéen nag waa jeunesse patriotique vraiment wax dëgg yàlla lu dul encouragé leen yoon bi dina gudd te dina métti depuis 2004 bi ñu créé parti bi ba léegi 2014 ba tey yéen a ngi ci li ci des bareetul

nee nañ xaw ma le 2 juin le 2 kii la guddal mbéyam noor na rek takku ngeen pare yàgg yàgg yàgg day am un mois deux mois te na ngeen ci dem ak xel ak détermination dinañ leen créer ambu su nekk bi nekk def nañ ko mais 2014 ba léegi li ñu teg yëpp mouvement bi day gën a yokk léegi nag loolu moo leen jaaxal te nag dee leen ci dem ak xel dee ci am xel. bañ répondre yenn provocation yi so xamé né yow yaay gagné ji dinañ la def tout pour distraire la bu len ko nangou lo dal la amone duma ci wax dal di len di encourage di lu sen sen stratégie bi ni parce que li dafa jaxal ñu bari parce que façon bi amuloon façon bi amuloon lu bess lañ indi lu bees nak suñu il faut que mu am ño xamné du du buñ ci gaaw a na ngeen and ak pédagogie di expliquer nit ki baña a amna ño xamné sen xalaat fofu la tollu

li ñu am am nañ ko ba pare am nañ ko ba pare yéen tax ñuy xeex réew may tax ñuy xeex waaw yal na leen yàlla defal yàlla ngeen doon kii kii ba jàmm jàmm waaw